sëriñ bi sëriñ Moustapha sëriñ bi nee mi ngi ñëwoon doon la siyaare si ci bis bi ngir jëmmi sëriñ Touba ak jëmmi sëriñ Mouhamadinil Moustapha sëriñ bi nee na nañ bis bi lool te yàkkamti ko ndax ngir ñooñu ma tudd waaye bis bi nag namoon nañ ko ngir sab jotaay toog ak yow dañ ko namoon lool ndax sëriñ Moustapha sab toogaay ci bis bi dafa neex ci ñun dafa am luñ ciy gis lu bari ak luñ ciy jànge ndax nee na li ñu ci gën a neex mooy na ngay mel ca nebo ji di ko mel ci mbedd mi bu bis bi ñëwee nga xam ne ñëpp lay bëgg a gis noonu rek ngay mel doo ci am genn soppiku sëriñ bi nee na loolu nag dañ koy namm lool daf ñuy neex lool ndax sëriñ Modou Moustapha mi taxawal bis bi kat dafa doy waar Mbàkke ku yéeme la ndax sëriñ Mouhamadul Moustapha kat bi muy taxawal jumaa ji nga xam ne booba Touba daanaka matul téeméeri kër te booba kër kër yëpp ay néegi ñax lañu ku fi mën a taxawal jumaa ju toll nii am na looy gis yow lu ñëwagul nag ndax Touba kat li muy rëy rëy jumaa ji mat na ko jumaa Touba lu fi mën a yokk it jumaa ju dana ko mat mat na ko jumaa kon nag ki taxawal loolu te booba tuuba matul téeméeri kër. kë booba kër yoo xam ne ay néegi ñax rek la. koo ko doon tabaxal taxawal jumaa ju mel nii gis na lu ñëwagul. xam na it lu ñëwagul itam. moo tax bis bii sëriñ Modou Mouhamadou Moustapha taxawal. balaa ñëw dañ koy nammu dañ koy yàkkamti waaye li ma wax léegi rek sa maam yu baax yi day sa baay bu baax bi sëriñ bi nee na yaa leen fi nekkal doy na tolluwaay waaye waaye sëriñ Moustapha wekk gi la nit ñi wekk ak sopp giñ la sopp sa jikko yi bopp la kaar kaar yàlla na yàgg sëriñ Moustapha sëriñ bi nee na mi ngi lay bëggee fu mu tollu di la di la namm fu ñu tollu waaye toogaayam ci bis bii sa toogaay ci bis bii sëriñ bi neen da koy namu namm da koy namm lool ndax daal bis bii bu ñëwee adduna yëpp bëgg laa gis nga mel na nga mel ca nebo ji noonu nga soloo mel ni nga mel ci mbedd mi noonu ngay mel tey ci bis bii loolu kuy gis xam na ne loolu du lu ndaw ku ndaw mënu ko sëriñ bi nee na sëñ mustafaa yàlla nga fi yàgg bu baax fi nga bëgg a yegg nga yegg fi jërëjëf Cheikh Abdoul Karim ibnu Cheikh Mamadou Fadil noo ngi lay jotali kaddu sëriñ bi Cheikh Moustapha Mohamed sëriñ bi xolam sedd na guy ci yaari mbir benn bi moom day cosaan te wax wax nga lépp te at mu ne nga wax lu mel noonu mooy diggante ñaar ñu tedd ñooñu nga xam ne dañuy wax ñaar waaye kenn lañ muy diggante Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil wax nañ ne Cheikh Mouhamadou Fadil daawul jaar tur sëñ Moudou Moustapha saa mag ju baax ja la daa wax saa mag ju baax ja la daa wax saa borom jubale leen jubale goo xam ne daf leen a boole woon lépp sax far ndax juróom benn weer lañ jiitlante ci àdduna kii daa feeñ mu muharram kee feeñi rajab loolu tawfeex la ju kawe sëñ Tuubaa booy leen lépp muy ànd gu rafet goo xam ne la ci aju xajul ci jataay bi waaye man nangoo naa ci sama waajur mu wax ne di yéem sëñ Fallu fekk boobu mu di ma woon bind moo xam ne sëñ Fallou ko bind maa nga ak man mu dal ne sëñ Fallou ak sëñ Moudou Moussa yi seen mbir lu yéeme woon la mu ne am na bis boo xam ne Cheikh Moustapha daa am yitti jum amoon di woo njaboot gi di ci waxtaan ak ñoom maanaam njabootu sëñ Touba gi li ñuy wax doomi sëñ Touba maa ngi jéglu ci kàddu googu ma wax waaye noonu la ko waxe nee na ban toogee ab diir lu yàgg mu laaj ñu ana sëriñ Fallou agsi naa ñu ne ko déedéet mu laajaat laajaat ñu war a tàmbali waxtaan mu ñu agsi mu yónnee waat lii ma wax ma ga ko nettali laaj ne ko na ko wax ne ko moom lañu nekk ne ko suñ fallu ne ko ah lo boobee ca loolee boobee loole xam noon noonu muy waxee ndeke boobee loolee mooy xasi la leen suñ tuwaa waxoon te suñ fallu bind tam nga bextu bu nu watiya bil iraada lakum li kay oxsa bi xarqil aada min baadi ma sharaytumuha min ni ahdaytuha lakum bi xayri mi ni moo mooy loolee ca loolee ndax ba mu lee boole suñ fallu daf ko ne ah man de moom njuréel gi jaay naa ko léegi moom doonatuma sa doom doonatoo sa bay soxla léegi taalibi laa ginnaaw boo ko jëndee nag njëg jox naa la ko addiya léegi maa ngi dem toog diglu ndigal sëñ Fallu daal ndaw la neel sa saam ak jobaa ja ah man bokkuma ci ñoom di bokkuma ci doom bokkuma ci ñoom daa fàtte loolee ca loolee maanaam jaayante ga sëñ sëñ Mudu Masaane ah daaw daal di ko waaye waaye waaye demal ne ko demal ne ko noogu moom noo bokk lépp mu dem ne ko sëñ sama ju baax nee na yéen a moom yéen bokk lépp mu daal ne ah bisimilah kooku di ku bokk moom doo sooy daal di ñëw kon noonu la meloon ak sëñ Modou Moussa loola mooy dox ba léegi ca Taïf sëñ Fallou dafa ñëw ànd ak njaboot sëñ Tuubaa gi sëñ Abdou Xaadir ca la bokkoon sëñ Abdou Xaadir mii waxtu julli jot ñu dem ci jàkka ji mu jàkk ji ci biir kër gi sëñ Modou Moussa ñëw daal ne ko sëñ Modou Fadal doxal jiiteel sëñ Fallou ne ko Mbàkke doxal rek sëñ Modou Moussa ne ko ko doxal ñoom ñaar ñu ñu ñu kenn ku nekk bañ bañ bañ demee sëñ Fallou ne ko mën na maa dox de waaye nag ci ci ci sart ci sart daam lu ci sart ci ci jiite gi may jiite sëñ Fall ne ko sëñ Mut Musaa ne ko bisimilah mu ne ko dama bëgg julli gi nuy bëgg julli nii bu ñu jullee ba sëlmal ko ànd ci julli gi kookee kum jiiteeti ku musa ànd ci julleem ba faw ñooñee nan am sahaadatu dare ni sëñ Mut Musaa daal koy puus ne ko bisimilah doxal sëñ Fallu daal di jiite sëñ Abdu Xaadir nag daa wax ne sàllaaw julli googi de fekke woon naa ko fekke woon naa ko fekk booba daa am ku ko ne bay si njaay gerte daf ko ne Mbàkke booy jiite aj ci tayif la woon tayif jàkka jàng ci tayif ba léegi ci biir kër ga jàkka joojee sëñ Fallu Jaantu mag ci biir kër ga fekk sëñ Abdou Khadir daa daa daa daa wax bay si njaay daa bay si njaay gerte daf ko ne Mbàkke booy xutba ci jumaa ji gis nga nit ñi ni lay defe jàkk di la xool mu ne ko ah ne ko xamul lu tax ñu ne la jàkk noonu sëñ Abdou Khadir lu mu mu ne ko xanaa euh, ragal ëllëg rek ragal sawara ëllëg rek mu ne ko sàllaw duñ ko gis de sàllaw duñ ko gis de ne duñ ko gis nag daal di koy nettali xësi bii ne ko jàkka sëñ Mourou Moussa ja ba sëñ Mourou Moussa yoxo la sàllaaw maa nga ca maanaam woon ko ne ko fekke ko gis ndax wax sëñ Fall kon nag ko tudd dañuy ñaan suñu waaye moom yi teg na la fu kawe